ab la ñu toll fi mu toll nii mooy gannaaw faxtu mak matxu fatxu naka la yonent bi alayhi salaatu salaam yore woon mbir mi ak naka la doxalee mbir yi li may wax nii waxuma ko ci wàllu spiritualité maa ngi koy wax ci wàllu woo xam ne wàllu àdduna la ndax yonent bi alayhi salaam du julleeg woor kese de waaw dafa amoon dimension temporel ci dimension temporelle boobu laay wax nga xam ne même occidentaux yi dañuy dem di jàng ci moom dimension temporelle boobu naka la ko yoree woon moo tax suñu gars yi jàngal nañ leen naka la ñuy defee politique jàngal nañ leen l'art de gagner en ayant raison sans pour autant avoir eu leur avoir permis de développer leur art de gagner sans avoir raison léegi nag on va leur apprendre l'art de lier le bois au bois pour construire le Sénégal que tout le gis ngeen ñii ñii duñu seen moroom bopp jamono jooju lañu toll ki ñuy roy ñun ci politique naka la ko doxalee woon ci ñaari fànn ba njëkk mooy bi mu dugg naa bale naa képp ku doon def tey leen rek dégg-dégg laa bëgg

wëccee rek bu ñu ba ma daaneel rek dinañu déggoo ñun ñëpp. da ngeen ànd ak tey dama wax léegi présentatrice bi muy commencé ne ko neel ma gars yi dama bëgg ñu déglu bu baax li ñuy waxtaan. may gërëm yàlla di nuyu et di féliciter kilifa yi fi teew. fii teew fi ay député ngi fii teew fi ay maire ngi fii teew fi ñu ngi leen gërëm ci seen teewaay waaye di dellu sant yàlla ndax tey ñu ngi nii am ay ministre tey ñu ngi nii yor gouvernement tey ñu ngi nii yor ay député yoon bi métti woon na lool ngeen am ci nag taxawaay boo xam ne dinaa ci dellu si waaye nañu ànd ak déglu rek dama ne moom bi mu yegsee dafa ne baale na waaye baale bi mooy lan est-ce que ku sàcc alal réew mi bokk na ci baale bi musuñoo wax ni baale nañu ku sàcc alal réew mi sooy baale da baale li nga moom dërëmu réew mi moomu ma ko président Bassirou Diomaye Faye moomu ko kenn ci yéen moomu ko kon mu see bokk te suñu discours yëpp mun nañ ko génne kenn du ci génne gis contradiction ci point bi kon d'accord nañ ci te ma ne gars bi ñu jëlee réew mi ak léegi li ñu gis day na waar de jarul lappi lappi jarul yooxu ñun duñu complot duñu créer kenn dossier dañuy faxasu leer nañ ne justice mi ngi nii wax lu ci yoon wax te fa la ñu jëm est-ce que baale bi est-ce que baale bi ñu wax baale bi est-ce que fekk nit boo xam ne day revendiquer ay droit loolu muy xeex nga faagaakal ko dóor ko balu fital mu dee est-ce que loolu bokk na ci baale bi mës ngeen ñu dégg ñu dañuy baale loolu kon ma dalal xelu ñëpp ni lañ ca war a def dinañ ko def jarul yàkkamti jarul parax paraxe ndax tey bu ñu bàyyee ñi jàpp Didier Badji ak sàmbu daal leen def li ñu leen di def ñu bàyyi leen nga rey nit keneen ki nga disparaître ko dem ba ci géej ga sànni koor ba ñu ne loolu yëpp nañ ko effacé dem bu boobaa ñun suñu bopp criminel lañu kon musuñu leen wax ni ca la bokk te du ci bokk jàpp nit parce que da doon ole nga dem jaar jaarale ko yoon su dee daf ko war rek waaye nga dugal ko ci commissariat di ko torturer est-ce que loolu bokk na ci baale bi musuñu koo wax kenn dama ne dem recruter ay nervi ndax fàttewuñu nervi yi de dem recruter ay nervi gandaay ñu song nit ñi di leen dóor ak di leen rey est-ce que bokk na ci baale bi musuñu koo wax kenn kon dama bëgg nit ñi ànd ak tey ak dal état dafa am nu muy doxe te ñun politique boolewuñu ak état de ñun dañoo xam état jàng ko ca fa ñuy formé nitu état yi moo tax lu ñu jootu ba téye ko xam leen ni tey nañ ko ba mu dëgër àndi leen ak tey ak dal ñu ngi ci liggéey bi lan la ñu waxoon ni mën nañ ko baale man Ousmane Sonko nee naa lañ ma def man mu jëm ci man kese lañ ma def man mu jëm ci man mën naa ko baale baale naa ko loolu kay amul problème te di sàkku keneen koo xam ne keneen koo xam ne sa xol may na la nga mën a baale baaleel parce que baale day féexal xol baale day yokk nit du ko wàññi loolu la waxoon ni ñun mën nañ ko baale waaye nag waaye nag waaye nag boo doxee ba ñu lay xeex ay at jël li ñu amoon ci moyens yëpp dalal ko sa kaw tiiñal la yàq sa liggéey dugg sa vie privée essayer tas sa kër toj say oto dóor la ay lacrymogène tëj la kaso loolu yëpp ñu def la ko ca jamono ja ngay ne opposition nga ànd ak muñ jiital yàlla ba yàlla jox la ndam jaaree ko ci Sénégalais yi xanaa kay ku am xel tuuti nga ne nag léegi naa teggi sama tànk waaye dafa mel ni suñu gars yi jàpp nañ ni mën nañu continuer di xëy di saaga di sosal di wax lu bon ci nit ñi ba pare toog tranquillement seen kër ma bëgg a leeral sénégalais yi lenn ñun suñu responsabilité en tant que ñu yor nguur te président Bassirou Diomaye Faye jiitu ci mooy réew mi il faut ñu delloo ko fi mu ne woon réew mi xamuñu woon lii de bañante enante di wax lu bon ci nit suba ngoon parce que rek àndu leen ci politique yéen ñëpp dégg ngeen samay discours yàgg naa leen wax ni ku fiy wër di saaga bokkoo ci Pastef lu leer laa musa wax yàgg naa def samay vidéo naan leen bàyyi leen lii bàyyi leen lële Pastef yoon yooni nit ci saaga wala xaste wala tiiñal wala di sosal nit ña ko doon def gis nañ leen parce que ba ñu jàppee ki koy def ñoom ñëpp génn nañ dem commissariat ne dañuy dem jàppale ko est-ce que mos nañ jàpp nit bu ñu ne dafa bokk ci Pastef ci ay saaga Ousmane ko dem fa wala mu wax ci mosula am kon may wax ñëpp nag suñu responsabilité en tant que état mooy réew mi ki ma ne mooy suñu royukaay ci weer wi ñu toll weer wi ñu toll muy weeru tabaski ci la def tàggatoom discours tàggatoom li gënoon a fës ci discours bi mooy seen alal seen deret ak seen orma araam na seen diggante ci weer wi la ko waxoon deretu nit réputation nit vie privée nit loolu lu araam la nañ ko sàmmalante kenn ku nekk moroomam politique débat d'idée la contradiction d'idée la ku mu neex nga ne d'accorduma ci seen politique um-, d'accorduma ci seen politique càmm gi d'accorduma ci li ngeen def ci ressource naturelle bi éducation bi ñu toog débat problème amu ci mais xëy rek ubbi sa internet di saaga nit ñi loolu duñ ci am tolérance ak kenn à commencer par waa Pastef yéen ñi seen bopp duñ ci am tolérance ci kenn barki démb semaine passée ministre de la justice man la envoyé vidéo ne ma kii ci Pastef la bokk te mu ngay menacé magistrat yi dama ko monsieur le ministre defal sa liggéey ñun neewuñu fi di xool kumba am ndey ak kumba amul ndey ndax loolu lañ doon xeex démb duñ ñëw tey di ko dëggal kon fii ñu toll nii soxlawuñu saagakat soxlawuñu xulookat xam nga li ñu soxla liggéeykat jublu ci liggéey bi rek te dinaa ci ñëw ci deuxième partie bi may wax noonu ñu ko bañee ci kenn kenn ku ne noonu lañ ko bañee ci kenn kuy wootewu moo xam da ngay bind moo xam da nga yor télé kuy wooteew journaliste parce que impunité bi am fii nag dafa ëpp man journaliste laa rek liberté de la presse mun naa xëy bind lu ma neex ku ma neex ma bindal la loolu jeex na ci réew mi jeex na tàkk dem leen ngeen lire code de la presse article 13 xaw ma article 14 wax na lan la ñu tere journaliste xëy dem jël ay affaire bind naan dañoo dàq général sàngam Sonko ko dàq dafa doon dafa doon xeex rebelle yi moo tax ay waxu ñàkk fu la ñu ñu woo ne la fan nga jëlee sa preuve nga naan benn sit internet bu nekk Delaware xaw ma fan loolu jeex na ci réew mi su Sonko sàccee xaalis su Sonko reyee nit su Sonko defee naka su dul noonu journaliste bu ci am preuve na ko bind def ko une bu rëy loolu c'est son droit loolu mooy liggéeyam waaye toog rek ne Sonko neexuma wala jox nañ ma xaalis wala Diomaye Samba wala Demba dinaa bind lu ma neex ci moom suñ ma wooyee ma ne liberté de la presse presse mënul am liberté bu keneen ci ñun amul président de la république sax amul liberté boobu président de la république mi ñu fal muy le premier des sénégalais amul liberté boobu on nom de quoi ab journaliste jàpp ni am na boobu droit du dee am nañu fit la bindoon nañ ko bindaat nañ ko bindaat